leen di leen gërëm di leen massawu di gërëm Cheikh ak ñi mu àndal ñi toog fi yépp tertu bi tertu bu mucc ayib la wax dëgg parce que Touba dafa nekk ci Sénégal dëkk bu spécial pour plusieurs raisons li tax mu dëkk nekk dëkk bu spécial mooy dafa fi am kilifa gu mag boo xam ne man dama am privilège maanaam dama am mbégte ñëw mu dalal ma ñaanal ma ma ne woon bu ma taaloon sama oto dellu sax sama mébét yàgg na leer wala réew moo tax xam naa yéen bi ngeen ci kontaan wante lii accessoire la wax leen loolu tey lii toog toogaay bii nga xam ne toogaay bu mucc ayib la accessoire la wala ñambaas sa waay de dama ñambaas accessoire la ñambaas boo toogee boo toogee nga toog nii mu toogee nii gën naa jege loolu sax defe naa image yaa ngi circulé du noonu ah du noonu ma jël téere yi jébbal ko sëriñ bi te seen kanam la mu ñaanal ma yemul foofu de ma jóge foofu bala may egsi parce que Dakar bañ fa jógee huit heures moo jotoon damay egsi di gaare sama auto université rek taw bi soob melax yi commencé ci euh, ma ne tawoo melaxoo damay dem taw waaw ma ne tawoo melaxoo mais man béykat laa taw ak melax du ma téye te ñu ficelé ñu ficelé programme programme boo xam ne dañu ko moo tax kii may ma ko jàmm moom xam na loolu de téléphoné naa ko fukki yoon ma ne ko sëriñ bi nee na 13 heures la may recevoir man bi may egsi ci de ci péage bu bujj bu Touba bi boobu 10 heures mu ngi waaj a jot te 11 heures lañ fa jox joxoon rendez-vous boobu 10 heures ñii maa leen jiitu sama sama délégation bi man ci sama bopp maa dawal de man maa dawal peut-être ñi nga xamuñ ko bi ma ñëwee fii rek lañ ma dawalal wante oto yu mag yi cinquante kilomètres laa leen jiitoo parce que dama ne man bu bu ngeen amee problème it man ñemewumaa rati sëriñ bi maa dawal sama oto ma maa damal dawal sama oto ñoo ba dépassé payage bi ne leen fu ngeen toll ñu ne nous sommes à cinquante kilomètres de Touba ma ne maa ngi toog fii leen xaar ñu ñëw ànd defe naa oto bi oh, beneen oto bi sax jëlee nañ ko université la nekk ah man yow donc gis nga ma man bi ma gaaree oto bi maa doon dawal ah maa ngi yooyu dawal ñoo ñoo ànd may may dawal maa doon maa doon sa chauffeur voilà kon nag jeex na di tax ma nekk sa chauffeur nag mooy parce que kilifa gi laa doon bañ parce que on ne sait jamais crevaison mun naa am lee mun naa am ma bu ma dawalee même bu ma ñëwee ba mu des ay 2 3 kilomètres crevaison am ma dox jeex na affaire bi loolu rek la alors donc kooku kooku boo amee privilège mu recevoir la nga dem ci sëñ Moussa Nawel moom la mu wax maa ngi hésité pour wax ko wax naa ko ci français moom moo ma ne maa la jàppal sa bopp. dëgg la wala du dëgg. maa la jàppal sama bopp waxul loolu. mu taal téléphone am. ah. très bien. waaw mu taal téléphone am. woo ko waxtaan ak Youssou. mais ñun yéemu gi ñu yéemu rek ci visite bi. te yuusu nañu lii sëriñ bi rek moo tax ñu koy def yéen dangeen di ganu sëriñ bi da ngeen di ganu sëriñ bi kër gi ñu leen dalal ñun sax duñu fi dugg dañu koy surveiller rek di ko defal wante doo gis kenn ci ñun toog ci law lal toog ci sees ci kër gi parce que ganu sëriñ bi rek moo fi ñëw am na gaayu sant Sall ci délégation bi ñu bernde leen ba ñu jaay seen sant. parce que déedéet parce que ki leen bernde sëy la sant. alors gars yi jaay seen sant wante nag bi ñu génnee rek lañu ñu nangu sant wi. alors donc di sant sëñ Badawi mi nga xam ne universitaire la waxtaan nañu avant mooy egg fii. ci université bi ci programme bi foofu la ñu njëkk a dem. ñëw gii nag loolu xeju ci. parce que commencé nañ ko wante dañ koy yeggal yeggali dafa nekk surtout chantier loolu xam nga infrastructure la mais dafa nekk aussi xoor curricula maanaam njàngale mi programme bi ni ko tëggee parce que dañu am dénominateur commun mu yore université ban ma yore université donc loolu moo doon sama ñëw Touba tey bi mujj nag mooy fekk si leen yéen ñii di waxtaan ak yéen ci lu gàtt ci parti bi ni mu tëddee ci statut parti bi ci njaayum carte mi ci élection yi ñu dëgmal. loi boobu ñu dëgal assemblée nationale euh, boo koy seetlu loi bi daf ne dafa am rek loo xam ne amoon na. parce que loi boobu da amoon na ah, presque dara changé wu ci wante nag li ci changé mooy li ñuy wax terroriste nit mooy nekk terroriste mais pour nga nekk terroriste faw nga am ay jumtuwaay faw nga am bokk. ay ndell wala leneen wala leneen mais loolu dafa am xaalis bu mu jar mais ñan ñoo nekk ca gannaaw di la financer loolu du nit ki personne morale bi la parce que dafa am personne physique mooy nit ki am personne morale bi muy société muy école muy parti muy leneen ñu ne fa ñuy sanctionner nit kooku ñu ne terroriste la dañoo war a mën a sanctionner ki nga xam ne moo ko dimbale pour mu am yooyu te loolu Sénégal daf ko signé il faut mu corpus juridique am mu dugal ko ci biir mënoo koo ñàkk a def dafa mel ni rek nga signé dara ak euh, sa nawle réew te yow sa loi amutoon loolu mais di nga fexe ba dugal ko ci biir loolu rek moo mooy mbir bi euh, xam nga loi dafa am la traité moo nekk ca kaw constitution tegu ci traité yi moo gën a fort constitution maanaam li nga séq ak sa nawle réew moo gën a force constitution yow constitution tegu ci loi organique tegu ci loi ordinaire tegu ci décret présidentiel tegu ci lu arrêté yeeg yooyu door cee tegu marche constitution la lii ñu voté loi la doo ma wax ne nag euh, loi bi moo gën a fort constitution bi donc comme constitution bi nee na ku am lu lu bugg a lu mu bugg a ñaxtu mun na marché te constitution bi kenn laalu ko loi bu ñu munti wote munta fexe ba def lu nit ñi lu constitution bi deful donc xam nga loolu amul problème maintenant kenn du voté loi pour ma Samba wala loi pour ma Demba dañuy voté loi rek pour ñëpp parce que boo nee loi bi dañ ko woteel opposition mais ñu nekk fii di actuellement ci pouvoir bi ñoom oppo démb ak barke démb opposition la ñu dama lay jox rek man sama cas personnel ñooñ sax mën nañu wax de depuis 2012 ñu ngi ci pouvoir bi mais man barki démb rek laa jóge ci opposition ñëw ci euh, euh, ñoo nekk ministre conseil président de la république donc nee naa boo ko defee defaloo ko ma Samba defaloo ko ma Demba ñëpp nga ko defal. li ma ne assemblée la fa xew yow mii ak ci dend ak yow bu ngeen jàppantee wala ngeen waxuma xeex de wax ju ñagas bu doxee seen diggante. walla sama question man gisuma ko déedéet gisuma ko dégguma ko de non mais attends bu ma gisloo bu ma dama ne bu dama ma gisloo lu ma gisul bu ma déggloo lu ma déggul man gisuma ko dégguma ko ah voilà voilà tu, tu avais une autre question non y avait pas une autre question allez ah oui non pas mu am ah <laughs> man <laughs> sa question bi question bu neex la kandidaa du Touba candidat 557 collectivités locales yi fu ñu fi mën a am am candidat dinañ fa am candidat fu ñu fi mun a am candidat dañ fa am candidat léegi fu ñu dem nag yaakaar ni bu ñu booloog nit dinañu am candidat mais ñu booloog nit bu fekkee ne mun nañ jox ñu dem élection euh, du da nga war a dem rek gagné wala danga war a dem rek perte parce que parti li tax mu jóg mooy nga dem élection donc man mënuma comprendre parti bu taxaw te demul élection donc élection yi ah defe naa li ñu gis fii daal te yaakaar naa ne ñu taxaw fii ay responsable lañu fii woowuñ fi benn fi militant militant nga toog seen kër ay responsable lañ fi woo yaakaar nañ ne responsable yi bu ñu defee la ñu war a def

mais dara waralu ko xam nga xam nga Sénégal ñu fi nommé ministre euh, dafay nekk événement. oh oui mais parce que ma parce que maay maay fonctionné noonu xam nga man duñ ma nommé ministre rek ma génn naan nome nañ ma et cetera di woote gars yi kaale ñu tëgg sabar yu demee noonu <laughs> affaire bi loolu rek la voilà. mais non man maa ngi ci opposition xam nga loolu kenn naatable wu ko parce que président dafa nekk candidat man ma dem nekk candidat keneen dem nekk candidat du noonu ba bu ma nekkee candidat am naa programme la aw ma programme te man sama programme defe naa wax naa ko sànq ci benn point la mooy nit boo nee nit rek lépp ñëw. mais bu président demee ba yaakaar ni war naa ko mun a xelal ñaar po ñaar ñaari réponse rek laa mun a am bu ma posé question te réponse boobu joxewoon naa ko bien avant président di ma woo du noonu dama naan waaw wala déet léegi nag bu ma nee déet ah est-ce que nit ñi duñu wax ni kii kat moom boppam rek la fi nekkal ah est-ce que nit ñi duñu wax loolu te boo newul déet ne waaw parce que man mus naa fi wax un an auparavant Mamadou Ibra Kane moo dem ci grand jury interviewé ma ma ne ko dugg ci nguur ñett mooy tax nit di ko def daara jëj joo cay ut walla am am boo fay ut wala bugg sa réew man nag yéen laa respecté yéen ñu toog fii moo tax ma sol mbub mii wante boo ma fekkoon fa may liggéeyee danga ma naan ana bo ci nekk fii parce que doo ma ko fooge sama sama rakk ngi fii toog maam Fatou te yaa ngi fi xam na ma bu ma solee kii moom dafa bugg ay yére yu rafet du noonu mais bu ma solee lu rafet sax man daf may xaw a gêne tuuti ñi ma xam gin lañ may gis ak casquette lu ma màgget màgget loolu laay sol man. loolu loolu laa solee bi ñu jógee dakaar bi fii maa ngi sumee koo fële ca affaire bu verte boobu yow xam nga ma du noonu donc dara ja moo tax sax yëre bi tilim parce que dafa doon taw bi may summeeku yëre bi daanu ci suuf yére bu weex laa indi woon ana màgget yëre bu weex bi daanu heureusement ñaari yëre laa indi ma indi bii bii sax euh, mujj na daanu ci suuf ci taw bi mais ma xaj ko rek non maa ngi ñëw pour pour bàyyi question bi xam nga loolu mooy dara ji ji dara ji ji loolu amul lañ cay am mais kenn amul dara suñ borom rek a am noonu comme suñ borom rek a am dem ci gouvernement pour am amul sens parce que suñ borom rek a am donc ñaar yooyu xam nga dàqu na léegi nag ma ñëw léegi léegi nag buggu sëree moo des ñett yooyu loolu la wax tey man boo ma nee baleel mbedd mi ndax buggu sëree moo bale ko loolu laa waxoon teg teg Mamadou Ibra Kane gars yi ne Issa dafay bugg euh, dugg ci nguur gi kërti kërti mais toog naa un an wala un an et poussière voilà c'est j'ai répondu yi jaay commencé nañu ko jaay bu yàgg ah jaay carte du ma yomb fenn gis nga carte boo ko doon maye sax nga am problème pour am ko jënd voilà jaay carte amul lu ko gën a métti man xam naa ci dara parce que man responsabilité administrative laa am ci parti bi en tant que président hmm. mais responsabilité politique nit moo koy utal boppam barki démb laa dem Tataguine installé sama comité fas yéene installé section fas yéene coordination hmm. xam naa li nekk ci njaayum carte ak jafe gi mu jafe donc yombul